laa ilaaha illallah laa kon nag ki dugg Serigne Fallou Fall si nag day mi téeloo garab bi sëñ ab dax te yow mi téeloo garab bii ak suñu ak su mbokk yu baax yi di suñu sëñ noo ngi nuyu jëw si tuwaay ji noo ngi nuyu jëw si sëñ tuwaay ji sëñ ab dax lakk noo ngi nuyu jëw si sëñ tuwaay ji Mourid yi Mourid yi barke Serigne Modou Moussa Fall Dia yàlla gën a dund yàlla gën a dund ñun ñëpp moom lay ñaan ñëpp lay ñaan rawatina ñu am rawatina ñu am pour suñu kër pour suñu famille sa dund bi yàlla gën a yàgg sa dund bi yàlla gën a yàgg sa wér bi yàlla gën a yàgg sa wér bi yàlla gën a yàgg sa man bi yàlla gën a yàgg sa man bi yàlla gën a yàgg sa njub bi yàlla gën a yàgg sa njub bi yàlla gën a yàgg woon dëgg bu mu mën a déglu. ma daan wax. lam daan wax. du ma ko waxati. du ma ko waxati. ku ne xam ne. ku ne xam ne. noonu mooy muur bi de. ngërëm li ñu gërëm jëfandikoo seen tubaab yi. ngërëm li ñu gërëm gërëm seen tubaab yi. waaw ah, ngërëm li ñu ko gërëm moom. ngërëm li ñu gërëm gërëm seen tubaab yi. muy seen tubaab si ak Mbacke. muy seen tubaab si ak Mbacke. bu ñu ko gërëmoon tey. bu ñu ko gërëmoon tey. li ñu bëgg naan kon tey gal. li ñu bëgg naan ko am tey gal. ndax lu baax lu ne. ndax lu baax lu ne. wala fu baax fu ne. wala fu baax fu ne. wala ñu baax fu ne. wala ñu baax fu ne. gërëm nañ gërëm nañ gërëm seen tubaab yi incha allah. li ñu def la ñun. li ñu defoon mu mu. mu mu yéen laa waxaale. mu mu sëñ bi yéen la waxaale. moom moo bar bi mën naa yónnee ba siyaare si képp nag. nee na moomul barab dañ ko yóbbu muy siyaare si képp nag. Ah, kon li am doy na. nee na kon li wax doy na. sëñ si mbak yàlla ñu seet. sëñ mbak yàlla ñu seet. sa wér gi yàlla doy na. sa wér gi yàlla doy na. yaa ngi lépp suñu tubaab seen lan. yaa ngi lépp suñu tubaab seen lan. ak ku bokk yow pas-pas ku nekk. ak ku bokk yow pas-pas ku nekk. dinañ yoon suñu tubaab yi. te yoon nekk yoon suñu tubaab ah, yi. ñaan suñu bëri ñaan bi. ñaan boobu sëriñ Fall di ñaan. yàlla nañ ko nangu yow. yàlla nañ la ko nangu. te boole ko ñëpp. te boole ko ñëpp. waaw waaw na ba. loolu dama melokaan laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha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 فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله kon jaaroon suñu jëkkoon jëriñ ji te bañ a lor rek képp doy na ku la siyaare nga wax dëgg sa xol saabu daal ko nangu te te baax ku ne dana ci ànd ñoom kon na seen mudum saa nun murid yi suñu xool seet na ci yow mhm. ci armam njëkkee daa ma kàddu ko xëy si suñu saafal lu suñu wax loon waaw ci gaa balu si Fall fii Fatou Ndiobo xam nga. noo denc ma ne muy muy naa wax ak mbooloo ma tàmbalee ci moom may may kii jot mhm. la ma yóbbante woon jot naa ma ma xool xoolum sëñ bi ma ma ndax yàlla damaa jaawale <laughs> ma ne ko so so fab si wërsëg di jox sa soppi doo dajal boo jox sa àll doo dajal waaye bi nga jubee nag nga jox ñu baax ñëpp ndax jub moom ñu baax ñëpp moom est-ce que laa xam seen mënum saa loolu ba si doon ci bari waaw ah, fii fii su may def jàmmee nag su ma neexee damay siwir ànd man dong ndax yow damay ngay ànd ak am musaa képp ñëw yéen ñaari yi ma xam lu ma doon fa yàlla junni junni yoonam nga nag kon war naa mën a dem ci àll man donc mais yaa ma tax ñëwee ci soo soo dem su àndul kenn mën naa dëng dem moom mi loolu ko lan ah. waaw moom rek bëgg lay wax rek su ko tënn ci yóbbu xam nga dégg ma njëg loo bëggoon bàyyi mu dolli li bi mbég mu njëkk moom mooy bi ñu xoolee ni nu waddee kër gi mm. te kër ga ku ne bëggoon ko war a defe defaat noonu nu nawloo la nu yem jëfam jure jën nga yemam waaw boo gis ko ne faw mu nga am dara am dara ci moom mm. ku baax ko ne bu bërëb bu bërëb tegee rek mm. moonu sax am na ci moom dara lu mm. rëy rëy rëy ndax ñëpp a jubee doon jëf rek ñaa ko jubee ko ne am ci da am lu la nga parce que sëñ sëñ si da nee na ko ah. sëñ Abdou Lahad nangu na ko awlu loolu moo teg loxo Sëñ Tuubaa tey loxo Sëñ Tuubaa ka taxoon biir jaam yi teg ci kër bi kër bi jaam yi suñu blaat gërëm ku ne am boole nga loolu yow kon teg rek loolu waaye ñëpp bëgg na suñu Tuubaa def ko ñu baax ñëpp la yéene am jàmm di bay wax lu bari dama doon dem fii yaa na ko ne ko ne ko bokk nu mu waxale dama mor yi waxaale naa leen